explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yi yëpp Sénégal si anam yu sell naturel jus Vito pour s'en goûter dormi collation de bureau ba ngénte maanaam bépp jus orange ngir may kawarte, cawarte ak jus carasol, amna, bar l'ol si yaram mieux, am solo gingembre bi Mom, dafa baax l'ol si góor ak ay bar lol itam si organisme Pouy bi wanyi day bar tooy baax si yaram tayit jus oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag vito soo pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag emballage civilisé te wóor ak jus vito da ngeen am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Monsieur Wout, Inch'Allah. Inch'Allah. Yalla nko... Fekke ak jam. Fekke ak jam. Amin. Ni may ñaanale sama bop jam ak salam ak wir non la ka ñaanale suma fessel. Ken baña manke. Amin. Ne na la inshallah dama bëgg dajj gribo do bu bes tak ci paquet. Hmm. Te buñuy wax te buñuy wax lamba dafa am aspect culturel am aspect sportif sportif. Hmm. Am na ño xamne bakku mbeur mo leen intéressé bu ya. mbeur mo bakku dañuy ñibi bi nañ setan ñu lamb parce que lamb ab bu addu sifflé eh, ya, ya. do bo togué ci nem sa du toj hmm. am ñoo xamne mbeur lañuy setan mu bakku ñibi seen kër lamb ci sax duñ ko setan am na ñoo xamne gën nañu dégg rëd saxit gën da rëd saxit gën da rëd manam gën gën muy faas bu sax man tous bu sax man manam touche bu dip waaw toujours neex rek rëdd saxin kim dak rëdd saxin sa dak rëdd saxin kim dak rëdd maanaam gëj nañu dégg loolu trois fil benn fil laa jël léegi léegi benn fii léegi boo yëpp nekk ci ginnaaw dirigé maanaam tànk ndeyjoor mooy jiitu càmmoñ ba ne ca gannaaw waaw waaw ma balancé wu gauche balancé wu droite waaw waaw mais waa paas am na lu ñu xam di naan ay jus wala di tëdd di nelaw ñu xëy solol ma xaftaan bi dama yaay troisième tigre de Fass déedéet déedéet da nga ko troisième tigre de Fass minute la da nga ko ñafe waaw bañ nañ naan ma Gris Bordeaux troisième tigre de Fass boobu Moustapha Gueye bàyyigul bëri dëgg la te man maa ngi def samay exploit ah mais bi nga ñëwee ci jafe-jafe bi may ñëw ci làmb ji jafe-jafe mënul yow mi sax ci jafe-jafe nga dëkk jafe-jafe mënul ñàkk ci àddina mm. mais dama la bëgg xamal ni sport yaa day wooyee des baax mm. dernier combat bi mu bëre combat bu ma honoré sumay supporter honoré suma bopp parce que man làmb ju ma am dama koy fayet suma bakken bi laa ci waa remake bi rue 19 angle 24 Médina la juddoo juddoo Abass Ndao su ma jógee nante day jóg ngaa koy toog ña ngaa koy xaar prolongation wala moo suñu <laughs> léegi mënu mbaax léegi mënu mbaax nag le 7 août Gris Bordeaux yëpp lañ jóg <laughs> Fass Gueule Tapée Colobane waagu ñaay fukki penc yeeg ñaar mbaaw kër Moussa Anne ba nga xam ne fa suma yaay dëkk ciki ba nga xam ne fa la paa bi dëkk tund saafeen bi yëpp séeréer sa séeréer yëpp maa leen jox rendez-vous le 7 août nee naa incha allah ci kàttanu yàlla maa ngi ñaanal sama bopp di ñaanal suma adversaire bés boobu yàlla bu dara manqué. da ngay jàpp dara wala. après la ñuy doon. dañuy bëri ah. te bëri nag mooy boo ñëw lépp ngay préparé. lépp te incha allahu rabbi runkunkum mën da ñàkk. fukki ak ñaari ci ndakaaru ñëpp sama waa koñ Médina Fass Gueule Tapée gars yi ñu ngi toog ci télé yi maa ngi jot message yi Malick di am contentement trop parce que làmb moom ma objectif ci làmb mooy saa yu mu ñëwee ci làmb rek mooy honorer mes supporters mooy wane fulla wane fayda te ball laa mujjee bëral te nag ba ma jógee ci combat samay supporter jëpp ñu tey laa gën a mën su làmb amee ma def ci kaan yi tey laa ko gën a mën bis bu ma ko mënatulee rek damay defi leneen te tak man aw ma ay supporter ay frère làmb man ñi ma ñi nga xam ne ma la dugal ci làmb tey laa gën a am cohésion ak ñoom tey laa gën a engagé wu tey laa gën a ànd ak détermination ci sport may def Balla laa mujjee bëral te làmb ja ba ma fa jógee ba fi may wax ak yow nii li tax Gaston boolewaat ñu parce que maag moom ku nekk da nga wane jàmbaar da war a njàmbaar ca bés ba ku ci nekk da nga yokki woo wane woo yaafus tey moo war a laat tey Gaston indiwaat ko kon boog Gris boobu góor góorloo boobu moo existé ba léegi te effort yi ma doon def tey laa ko gën a mën surtout na ci combat bi c'est pas parce que je me prépare pas pour pour combat bi rek je me prépare pour relancer ma carrière Garçon, je suis en train de négocier avec mon petit combat parce que combat bi mon ex suma Et, Inch'Allah, je def un ak fayda te euh, ci def ci amna ci expérience. ci def suma rek combat yi je comme combat permettre wane fulla wane fayda parce que làmb moom préparation la rek. te rek metti woon na li ma laaj moom. cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits y ñu jëmbatee au Sénégal si anam a mieux celle naturel jus pour s'en goûter dormi, collation ca bureau Niente, manam bepaheo Amna jus orange ngir may leen cawarte ak tonus jus lol amna, bar baax lool si yaram ak ay ferñeenteem am solo gingembre bimom, moom bar l'ol lool si góor ak ay bar baax itam si organisme buy bi nag day toi, tooy baax si yaram tayit yi jus oh oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak Vito so excellent pour fête bu mënti doon te baax lol si yahu gune ak mag lépp nag emballage civilisé Tour. wóor ak jus Vito da ngeen am choix Vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06